parce que duñ taalibe ay fanatique lañ ay naafiq lañ ay saytaane lañ rambaaj rek la ñuy taxawee yenn taalibe yi parce que lu tax ma wax ko danaa leen ci leeral lu leeral vidéo bi nga xam ne gànn Messere mu ngi ko def di ci dal Seexu Tijaan ba koy gànn Messere di def ay Tijaan nekkuñ fa woon ay muritu kese ñoo fa nekkoon mu ngi koy mu ngi ko defee ci benn tànt di waxtaan taalibe bi jël vidéo boobu moom dagg ko tas ko ci réseau sociaux yi ko moo jàllale message bi moo indi coow li li coow li bari bari taalibe boobu tam pourtant nee na taalibe la de nee na ci ndigal lay wéy nee na ku bëgg yoon wi la nee na ku bëgg diine la mu gis benn wax boo xam ne su ko génnee leer na wax bii su génnee dana ci taal àdduna bi mu jël waxi gànn message boobu rocc ko ca tànt ba tas ko ci réseau sociaux yi te pourtant nee na ab taalibe la kun kooku saytaane la taalibe yooyu dañ leen war a génne ci tarixa yi nga demaat ci euh, ki nga xam ne moo moo moo doon joxe dog bi tamit moom ci groupe whatsapp la ko wax ab audio la mënoon na yem fa mu ko waxee woon waaye ay taalibe tamit ñoo koy récupérer te ñeneen nee nañ gëm nañ Baay Ñas de gëm nañ Seexu Tiijaan ñoom ñooy récupérer mbir ma ñoom it ko tas ko nit ñi di ci reyante ba léegi taalibe yooyu laa leen di dénoncé ngeen di bàyyi xel dañoo fees dell ci biir tarixa yi muy façon taalibe yooyu xeetu taalibe yooyu nee nañ ay taalibe lañ waaye suñ sañoon yoon wañ gëm tàkk suñ sañoon nit ñi rayante suñ sañoon nit ñi dee ba jeex parce que ka génnee vidéo Gana Messere ba ca gàmmu ga ak ki génnee audio ba ci groupe whatsapp ba monté ko tas ko ñaar ñi def loolu ak groupe yi def loolu ñooñu ñooñu ñoo indi saytaane bi ñoo ñoo indi problème bi ñoo ñoo indi histoire bi moo tax mën a la seytaane xam nga keroog wax naa ko ñu bëri di ma di ma mere mën a leen iblis góor yàlla la iblis ku bëri xam-xam la te iblis soxlawut foo xam ne jàmm dafa am iblis iblis soxlawut fu fu jàmm amul fu jàmm am la iblis soxla soo gisee iblis soxla kër góor yàlla yi moom saytaane su ngeen gisee mu soxla kër góor yàlla yi parce que dafa am liggéey bu mu fa bëgg a def pour tas ko moo tax day dem dëkk fa ut fa néeg jébbalu fa wane ne moom dafa gëm li ngeen gëm la gëm Iblis noonu lay def Iblis day dem ba Touba jébbalu na moom dafa gëm sëriñ bi comme ni ngeen ko gëmee Iblis day dem ba Medina bàyyi jébbalu na dafa gëm bàyyi comme ni ngeen ko gëmee day dem ba Tiwaawoon jébbalu ne dafa gëm maam Maodo comme ni ngeen ko gëmee moom Iblis su peree nag ca biir ngëmam googu mu ne moom la gëm moom Iblis si lay duggee ci biir kër sëriñ yi di yàq di liggéey di féewale di xajale di tasaare su peree ba gars yi di rayante mu taxaw fee naan ñëw waaw waaw lii rek laa bëggoon nañ dee ba jeex rek nañ rayante rek yéen a ngi jiiñ seen noon yi ña nekkut ci yén fekk seen noon yi ñu ngi seen biir lu garaw laa leen wax pour ngeen bàyyi ci xel dama ne tarixa yi seen noon yi ñu ngi ci biir tarixa yi noonu yoon yi ñu ngi ci biir yoon wi yaa ngi jàpp ne kay wax mooy sa noon wala ka ngay xool ne bokkut ak yow gis-gis mooy sa noon déedéet sa noon bi mu ngi añ ak yow di reer ak yow nekk ci biir tarex bi soo mbëkkee mu mbëkk soo xalangoo mu xalangu soo yuuxoo mu yuuxoo te pourtant kooku liggéey lay def pour taal tarixa yi ngeen bàyyi ci xel beneen point bi may ñëwaat pour mu gën a leer gis nga télé yeeg rajo yi nii mooy li may wax chaque jours gars yi maa ngi jégalu ñoom dañoo yor seen produit bi ñuy jaay ñoom télé yi ak rajo yi dañoo yor seen produit bu ñuy jaay. te dañoo bëgg mu jar waaw. code bank am ko. ah non dama ko jeexal. mooy bee bee dafa am problème quoi bi ma ci yor noonu. ah boobu doxul quoi ah, waaw. xam nga télé ak rajo yi ñoom dañuy jaay. dañuy jaay seen kii seen produit la ñuy jaay ñoom télé yi ak rajo yi dañuy calculer ne suñu invité Gana Messere wala invité waa Kër Baye wala invité kële léegi coow li dana taqar si su ko defee gars yi gën ko partagé ñoom seen tele gën dem ci kanam ñoom ñoom ci yooyu la ñu doon ñoom gëmuñ diine doxuñ sax ci diine ñoom yooyu sax intéressé wul leen ay diine te pourtant Gana Messere moomu ak Mouhamadou Bichir yooyu noonu ah ñoom la ñuy invité Touba TV. ak yeneen télé yi nga xam ne télé Mouride la te pourtant suñu leen fa invité même wax yi ñuy wax fii moom même wax yi ñuy wax TFM moom la ñuy wax foofu mais du jël ampleur kenn du ko déglu kenn du ko partagé sax kenn du ko partagé suñu leen invité foofu. taalibe Baye yi ñuy invité ci télé TFM ak ay Sen TV yooyu ñoom it suñu leen invité ci Baye efem wala Alfayda yi nga xam ne télé tarixa bi la ak rajo tarixa yi kenn du leen partagé kenn du leen seetaan. waaye suñu leen indee ci télé Pape Cheikh Diallo bi ñëpp dugg commencé di partager parce que kii ki ki njëkk a invité dana wax ba gaaruwaalee ñeneen ñi après suba ñeneen ñi lañu war a invité ñeneen ñooñu war a ñëwaat pour waxaat pour gaaruwaale ñeneen ñi ngeen nekk ci compétition supporters yi nag nekk ci gannaaw terrain bi supporters yi nekk ci gannaaw terrain bi mooy commentaires yi ñoo ñooy supporters yi supporter bi naan sama mbër la mën benaan ko da ngay dóol sama mbër fi ne kee naan ko noo waxoo dëgg sama mbër mi xoolal moo dem fii def lii kee naan ko sama mbër mi moo caxabal fii moo dugg fii yéen ñàkk fayda yenn taalibe yi yéen a ñàkk fayda waxuma taalibe yëpp da yenn taalibe yi dañ leen war a génnee diine ji xalifa général dañu war a jël seen matuwaay yenn taalibe yi ñu génne leen tarixa yi génne leen diine yi noppalu barke alxuraani karim am na taalibe yoo xam ne dañu leen war a dajalee bañ bari ñu yóbbu leen parc an jox leen gaynde yi ñi lekk leen parce que loolu lañ mérito parce que nan nga mën a nekkee ab taalibe ba pare net nekk tête vide maanaam boobu amul dara bopp kese bërigo bu amul dara di kandang kandangi di déranger nit ñi di tànqal waa réew mi di tànqal sénégalais yi guddeeg bëccëg suba ngoon te amoo benn toq xam-xam bu nekk ci yow yow riirandoor rek su coow li ne bërët nga topp ca coow la xamoo sax lu xew fi bëri na taalibe yi fii lappe-lappe ñu bëri soo leen laajoon lan la Sëriñ Tuubaa indi ak lan la woote munuñ la cee leeralal cent soo leen laajalee li Baye Niass indi munuñ la cee leeralal dara soo leen laajee li Maam Maodo indi munuñ munuñ la ci leeralal dara ñoom riirandoor bi ak pënd beeg poussière bi rek lañ topp rek lañ topp di tëll tëll ba pare fu ñu waxee na ngay rëy làmmiñ di ratatati gis nga doomu aadama su fekkee da nga yëkkati sa loxo bii na sama sëriñ moo gën ci sëriñ yi war nga mën a yëkkati sa beneen loxo bi na man maa gën ci taalibe yi wër na rasulullaay waaye fu ñu la fekk yaa ngi yëkkati sa loxo naan sama sëriñ gën ci sëriñ yi te yow ku la xool sa doxalin suba ba ngoon jot suba ba ngoon jot ku ko gis te gémmiñam parce que ay musiba naaru lay rek ngay def suba ba ngoon jot te foo yuuxoon na sama sëriñ a gën ci sëriñ kon xoolaatal sa bopp sama waa ji parce que ñi ngay waxal naxoo leen de sa bopp ngay nax ñi ngay waxal naxoo leen sa bopp ngay nax parce que nit képp kuy woote na diw moo gën war nga fexe fexe yow nekk nit ku gën ci nit ñi parce que gis nga baatinu sëriñ mooy zaayiru taalibe pour ñu xam ne sa sëriñ ku baax la fexeel yow yor melokaan bu baax fexeel yor jikko ju baax fexeel di def lu baax di wax lu baax teg sa tànk ci ci siraatal mustaqim loolu teg tegtal na jarul ngay wax nit ki sax sa sëriñ ku baax la parce que loolu rek dana teg tegtal nit ki ne yow ki nga jokk ku baax la mais du ay saaga ndey lañuy xamee ne sa sëriñ ku baax la du fanatique ku wax nga ne da koy rey ku wax nga ne dangay taal këram ku wax nga ne da koy attaqué loolu du tegtalu lu baax loolu du tegtalu baax pour ñu xam ne sa sëriñ ku baax la jarul nga koy wax nit ñi fexeel nga nekk nit ku baax di jëf lu baax di wax lu baax teg sa tànk fi yonent bi tegoon tànkam muy tegtal bu jëm na yow mii ci ki ko jokko ku baax la mais supporter amul njëriñ supporter amul njëriñ maa ngi ñaax samay mbokk sénégalais di ñaax samay mbokk jullit ñi ñu bàyyi seen xel ne barke alxuraane karim tuuti ngeen. yéen taalibe yu lappi lappi laaw tuuti ngeen ci jaxase tarixa yi tuuti ngeen ci def tarixa yi ñuy rayante ndaw ngeen ci parce que xam nañ na yéen ay ay iblis ngeen